te dinaa wax ne aussi euh, yoon ku fay dem doo fa dem di yaakaar ni soo fa demee dan lay. mais mais moom moom wax na ne gëmul justice wax na wax na ŋaññi na leen et tout donc est-ce que amul contradiction foofu yéen boo leen xëyee. Euh, attaqué chargé bu baax a baax juge yi nga xam ne ñoom ñoo leen di àtte quoi qu'il en soit ñoom lañ fi am ñu baax ñu bon ñoom lañ fi am da ngeen leen di chargé après ngeen demaat espérant que. di ngeen ko jëlee xam nga xam nga justice Sénégal. képp ko hmm. wax ak sa diggante yàlla la xam ne on a une justice qui est malade en partie il faut le dire parce que suñu justice la. mais parfois elle a elle, donne une décision boo xam ne c'est en votre faveur. xam nga xam nga dañuy naan dans dans un troupeau. Hmm. y a pas que des brebis galeux. dina dina dina am dina am vraiment la majorité sax man jàpp ni. Hmm. Euh, l' intégralité magistrats ëpp mën naa jàpp sax plus de quatre-vingt-quinze pour cent ay magistrats yu honnête nañu. c' est des qui veulent qui veulent travailler. ñoom si seen bopp. ma ni ñoom si seen bopp ñoom si seen bopp sax parfois am na ñoo xam ni ils émettent des critiques dañuy xam ni. justice bi am na fu muy sooxee loolu kenn werante wu ko ñun c'est-à-dire que le président Ousmane Sonko bu muy critiquer justice loolu lay critiquer te yàgg na ko wax mosul wax l'a jamais ma ma mmh. wax loolu mmh. il l'a jamais dit mmh. il pointe c'est-à-dire que euh, xam ne dafa am si loolu lay loolu lay pointé pour ma ñëwaat si kii bi ñun du ñu dem si justice tout en disant que euh, dara du baax tout ça parce que loolu soo ko waxee juste peut-être mieux vaut nga toog sa kër nga bañ a dem parce que juste soo fa dem da nga fay dem ak une soo fa demee nag ñu jox la dëgg ak ñu bañ la jox dëgg yaa a des voies de recours qui sont aménagées yoo xam ne yoon may na la ko bu boobaa mën nga fa jaar léegi nag soo demee ba sa cappaandaw ga suñ la joxee dëgg nga xam ne suñ la jox lu aussi nga xam ne jox nga tirer les conséquences aussi parce que aussi il ne faut pas refuser aux gens ak ku mënti doona ah, mu hmm. nekk un libre citoyen hmm. un citoyen lambda mu nekk ou bien un citoyen politique ou bien citoyen bu am ndombal tànk ak ku mënti doon su décider ji tribunal ak bu mu mënti doon si Sénégal ak si àdduna bi jëlee benn décision moom aussi am na liberté joxe ko interprétation boobu nekk